Assalamualaikum. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax Abdou Salam Cissé la Sonkorong tay ji di aljuma tolo ak fukki fan ak ñett ci wéru septembre atum 2024 ñu ngi nuyu mbokk réew mi yépp di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada waye di massawu tey jaal mbokk réew mi ci xew-xew yu metti yi nga xam ne jaar na fi ci ay accident njaboot gu bari sëngéem ci ay boroom kër yoo xam ne jógoon nañ di daani doole yàlla jël seeni bakkan ci accident bi ci tali ay ndaw yoo xam ne jógoon nañ di wuti koom ngir fañ ko gën yaakaar yaakaaree di bitim réew dugg ci géej gi yàlla def Senegal, gaal ci ndox mi ñi ñak seeni bakkan ñi ngi leen di jaal di jaal seeni mbokk di ñaan yalla li yal na jeex ci réew mi bakkan bu dem kenn ta wax ne yal na jeex ci réew mi waaye nañu ñaan ne yal na fi gëj waye accident yi yal na jeex ci réew mi jeex tak yalla sunu borom man na xamna fi muy jaar ba mu am yal na def accident yi yal na jeex ci réew mi moo xam bu jéeri ji bu jaawa ji wala boo xam ne ci géej gi lay doon di wax rek ci kaw gi ndax ñun sunu wax lu ci ëpp ci kaw gi lañ koy lañ koy jëmale ndax damay dégg alaaji baaba li ne booy wax dangay wax ci li nga xam ne foofu nga gën a xam fi ñu gën a maîtriser mooy kaw gi di waa àll bi am na dëkk yoo xam ne boo fa demee ngir ñu am ndox mu ñu naan jafe na leen trop ngir machine gas ko sax dina leen jafe trop ñun am na dëkk yoo xam ne boo fa demee tey seen àll bi yaatu na trop dem na ay kilomètres ay ay ay millions yi kilomètres ñii am benn million yi am ñaari millions yi kilomètres ñun amuñu lu toll noonu tey boo demee dëkk bu mel ni Mali man nag kilomètres ay millions yu kilomètres da ngay compter lu ëpp million kilomètres ci seeni surface nga dem dëkk yu mel ni Niger dem dëkk yu mel ni Algérie mu doon dëkk yoo xam ne nii yu yaatu lañ ci suuf waaye am na lu ñuy wutee ak senegal nit bii nga xam ne dëkk bi li muy mesurer ci surface bi taxut ko mu yaatoo lool waaye am na loo xam ne ñun am nañ ko muy àll boo xam ne àll bu naat àll boo xam ne foo tourné daje dëkk loolu nag yàlla jagleel nañu ko ci kaw gi tey amul dëkk booy amul diggante booy dox suba ba ngoon wala nga dox juróomi kilomètre wala ñaar vingt wala dix kilomètres te doo jot dëkk boo jaaru ci biir dëkk bi da nga seen dëkk bi féete la càmmooy wala mu féete la ndeyjoor loolu it nag dañ ci sant yàlla léegi loolu war nañu taxaw ci àll bi ci kaw gi ndox mi nga xam ne yàlla defal nañu ko defal ñu tool yoo xam ne mën nañ ci bay ñu ngi lancer appel di dolliwaat ci président de la république bii nga xam ne mu ngi fi nañu dimbale ñi taxawu ci ndaw ñi ñi mën ci profité ak jigéen ñi ngir mën a utiliser loolu jëfandikoo ko liggéey ci ni ñi koy defee mooy eh, kaw gi am na ay forage dëkk yu bëri am nañ forage seen teen yu bëri ñu ngi ko dëpp teen bu ñu dëpp boo dem ñaareel espace ba ko wër yëpp mu ngi fa tegee nañ ñi lijjantil ndox mii nga xam ne mooy sunu forage yi nga xam ne ofoor mu ngi ko yor ci kaw gi ay loraange kese la jural njaboot ak lëm mu taxaw fay seeni facture ndox boo xam ne ci seen biir dëkk bi lañ jëlee ndox mi machine baa ngi ca biir dëkk ba ñi pare bogo bogo xaalis boobu yëpp na toŋaañ ak moom dem loolu muy lu ñaaw loo xam ne état wu Sénégal war na ci mën a jóg dëkk bu nekk war na mën a gérer boppam foraasam di ci gagné di ci gagné di génne fere di tegee nële en cas où bu forage ba paane paanee ngalawaay dëkk bu ne nañ ñi fexeel ñu utal ñi ndaw ñi nekk ci dëkk bi ñi former leen ba ñoom seen xam-xam am ñoo xam ne seen xam-xam day màcc ci forage bi machine bi bu paanee ñu mën a dem régler ko waaye dootu ñuy jëggaani koo xam ne dina ñëw defalal ñi loolu ñi fexee joxal ñi diplôme ndaw yi nga xam ne ñu ngi ca dëkk ba def plombier ba nga xam ne ñun bu amee tuyau bu toj du soxla ñuy woote ji exemple ci Sonkoro ñuy woote ji ñooro wala ñuy woote ji kenn ca Kaolack pour mu ñëw réparer loolu waaye ndawi dëkk ba comme nit rek moo koy defar ndawi dëkk ba defar loolu pan boobu ñu jàll ci leneen ñi fexe xaalis bi nga xam ne effort mu ngi koy jël ak mu ne wala weer wu dee ñi fay seeni facture ñu bëgg a xaalis boobu yëpp yóbbu nañ fexe xaalis boobu muy des ci dëkk bi bu ñu jëlee cinquante pour cent yi dugal ci benn compte boo xam ne nii dañuy leer ne compte bi compte bi dafay tëdd pour investissement boo xam ne day dellusiwaat ci dëkk bi nan la fay dellusee man am naa jàtt ci penku bi kii am ko ci xarfu bi kii am ko ci bajax bi kii am ko ci bëjjéeri bi bëjjéeri bi ñu xool ñeenti côté yëpp mooy li ñuy wax nord sud est ouest affaire yooyu euh, ñu xool côté yëpp fu fa tool am ñi fexe gas fa mini forage yoo xam ne bu noor jotee waa dëkk bi dinañ fa man di bay di bay lëjum di jaay bay jaayi ñeneen ñi def espace yoo xam ne moom dañ fay bay noor di bay nawet bu ñu demee ba nawet bi ndox mi bëri ñiy bay ci biir dëkk bi waa dëkk bi di ko ay di ko jënd ci njëg goo xam ne gu yomb lay doon fayloo ci transport kee bayut ba pare ñëw yëpp ci oto ñëw jaay si la mais ci biir dëkk bi lay doon loolu xaalis boobu pour ñu am ko ci ofoor yii lañ ko mën a amee beneen bi muy xaalis boobu dëkk boo dem ñu ngi kurti kurti pour tabax hôpital pour seeni dëkk ñu ngi kurti kurti pour defaraat seen jumaa ji nga xam ne ci la ñuy jaamoo yàlla ci biir dëkk bi pour defaraat euh, marché boo xam ne jigéen ñi yëpp war nañ fa mën a dajee di jënd loolu boo ko yenee ci loosu état wala ci ko loosu mairie pour ñu defal la ko mun na jël temps mun na diire mais buñ jëlee xaalis boobu nga xam ne mu ngi jogee ci effort buñ gan gannaaw buñ génnee fere yi ak li nga xam ne waa dëkk bi ñu ngi koy dajale loolu dina mën a indi développement bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw te boobaa dëkk bi dinañ def ñoom cotisation yi ñuy def at mu nekk wala bis bu nekk ku nekk weer wu nekk ku ne joxe mille francs wala deux mille francs at mi mooy vingt quatre mille ku nekk ñoom ñëpp buñ dajalee xaalis bu bari la dëkk yu bëri ñu ngi koy def fi mu ne nii mais pour ñu jàppale leen nañ fexe ressource bi nga xam ne mu ngi jógee ci dëkk bi mu desaat ci biir dëkk bi di waxaat tamit ñun ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci kaw gi nañ bàyyi xel sunu bopp bañ di topp rek waxi politicien dafa niroog waxu mbërëm làmb daanaka waaye dafa am fuñ ñu waxu mbërëm làmb keroog bu buñ daanee mbër ma la nga doon wax yëpp day dàqu nga teg ci sa bët waaye waxu politicien tant tànk ki nga ki ngay défendre mu ci nguur gi ba léegi mënagoo ci teggi dara muy nguur yi fi jaar di nguur yi ku ci nekk lañ la dénk ci ñoom nañ ci wasu sa kemtu lay kàttan xam ne askan wi am na loo xam ne ñi ngi koy xaar ci yow bu fi mu ne nii ñi fii ñuy wax ak yéen seetaan nañ comme ni ko sénégalais yëpp seetaanee président de la république tas na assemblée nationale wax ci li nga xam ci commune bi ma dëkk di département bu Nioro wala ci département bi ma dëkk di département bu ñooro Dirib gis nañ amoon na ñaari député Ali Mané ak maire Soukeyna waaye tuuti da ngay fir da xam firnde ne politique ndaw moo koy def politique tamit dafa soxla ngay wàcc ci terrain bi di wàcc ci base bi di xam saalum dëkk yi nga xam ne wala yow fi nga fiitee bu ma ko waxee nag bawal mu ngi fi am na député yoo xam ne ñu ngi bawal waaye li ma naan wax ci loo xam nañ xam ne li may wax ni bawalang ci kajoorang ci njàmborang ci réew mi yëpp a ngi fi ba fuuta waaye exemple tey ki ñuy fal député na xam saalum dëkk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe courant na xam saalum dëkk yi nga xam ne ki nekk ci département Nioro ak ki nekk ci Saalum na xam dëkk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ndox na xam dëkk yi nga xam ne seen yoon yi am nañ jafe-jafe dem ak dikk ngir bu taxawee ci assemblée ba mu mën a wax turu dëkk ba mën a teg teg loxoom ci li muy wax gën ci mën a fës waxuma ci ay xiiroo yàlla bu mu amate ci sunu assemblée nationale bi ay euh, boqante ay dóoranteeg yu ne nga ko ciy gis yàlla bu amati képp ku ci dem na nga xam ne saw askan ñoo la ngemb saw askan moo la fa teg nga dem defendre askan woowee ngir seeni jafe-jafe yooyu mën a faju nga defendre ci askan wi nan la effort di def ba delloowaat askan wi ndox moomu delloowaat ci loxo askan wi askan woowee fu ñu bëgg a xëcc ndox kër gu bees gu sanc boo bëggee xëcc ndox mu yomb ci yow mais xoolal fi ne kër gu bees gu sanc ci dëkk yi am ndox pour nga am ndox jafe-jafe mu mat sëkk lay doon nga mën a défendre sa askan ci loolu faloon nañ fa Alimane ak maire Soukeyna Alimane jërëjëf eh, maire na jërëjëf Alimane wax dëgg yàlla dégg nañ ko fi heure bu waxee danañ dégg mu dugal ci défendre li nga xam ne ci lañ ko dénk eh, ki démb rek maa ngi koy dégg lu gàtt-gàtt wax na ci tribunalu Nioro bi nga xam ne soxla nañ mu nekk kërug attekaay goo xam ne bu mag lay doon ñi fay man di attee loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal maire Soukeyna dégguñu ko ci lu bari peut-être xëy na mag moo ko jàpp wala leneen wala mu ñàkk it am information wala it ah, xaw ma xaw ma xaw ma waaye daal biñ ñu ko falee léegi taxul ñu dégg ko ci lu bari terewul jigéen ju jàmbaar la eh, jigéen la joo xam ne wax dëgg yàlla macha allah eh, fi ñuy jeexalee mooy ñun ci suñu bopp an si Salam Cissé Sonkorom nekk président démb mi eh, li ñuy wax mooy élection yi nga xam ne mooy élection député yi ñu jëm li ñu am ñun mooy kilifa ci politique kii di monsieur le maire Saliou Cissé moo ñu dugal ci politik lépp lu ñuy def li may wax nii nag dama koy adressé ñi nga xam ne euh, xëy na ci jëmm ju xeebu ji léeg-léeg ñi laaj ñi suñu tolluwaay ci jëmm ju xeebu ji dàq ñu benn yoon nekk lu ne ci réew mi moo xam député bépp ndombal tànk bu réew mi di am ngir mu mën a jëmale sa askan ci kanam pare nañ pour nekk ko waaye dañoo am kilifa gu ñu mat sëkk gu ñu doy sëkk kilifa ci politique muy monsieur maire Saliou Cissé nekk maire commune bu Kaymoor ñu koy nuyu ci sunu antenne lépp lu ñuy def wala jéego buñ bëgg a yokk ci politique dinañ waxtaan ak moom lan la ci xam lan la ci xalaat bu ñu ne defal lii loolu lañuy def du ñu si sax am xelaat du ñu sax am xel ñaar ci moom la lépp di defee lum ñu xaarloo loolu la ñuy xaar lum ñu ne def ko ci lii ci politique loola lañuy ñuy def kon fi mu ne kàddu gi ak lépp lu ñu ci def ci wàllu politique boobee ci moom la aaju waaye di wax ne waa département bu Nioro nañ joxante loxo ak di ko ñaax ci réew réew mi yëpp fépp fu député war a génnee nañ joxante loxo muy pouvoir bi muy opposition bi ngal ngallaawaay bu ñu demee ba ci assemblée nationale ba bu ñuy waxtaan ci assemblée bi na nañu waxtaan ngir njëriñu askan ba bañ di xarab kenn di wax jëmale ko ci keneen ataa yooyu sax yenn yu sew yi ci am jigéen ñi lañ ko war a bàyyee te ñoom itamit nañ ci bàyyi xel bu baax parce que dañ ne euh, léeg ñu ne am na jigéen ju man góor waaye ci nan la koy manee du ay xarabante ci biir euh, péncum ndaw réew mi nañ fexe ñu défendre suñu askan li ñu manqué ñu fexe di ko wax maa ngi koy ñaax muy pouvoir bi muy opposition bi ëllëg ku fa yàlla teg ku fa yàlla mënta teg xoolal réew mi li mu manqué du wax sax sa gox rek xoolal réew mi li mu manqué ak fan ko gëstoo ba gis ne manqué na ko fa nga taxaw dut fa baaraam wax fa yu ànd ak preuve ñu fexe saafara saafa ñu fexe jàngoro jooja saafarawu réew mi jàll ci leneen bépp dëkk boo xam ne fexe nañ ba def fa benn tool boo xam ne dëkk ba ñu ngi fay bay nañ organiser wu lii génn ci recette ñi nekk ci tool bi di liggéey di ci gis seen bopp dëkk bi di ci gis seen bopp waaye bu ñu bàyyi benn étranger ñi ñëw ne moo implanté lii moom mooy jël mooy jël soixante dix pour cent yi trente pour cent yi dëkk bi ñoo koy séddoo loolu baaxul fi ñu jeexalee mooy ñoo ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne nañu gën a jàpp ci kaw gi parce que war nañu mën a suqaliku jógee ci fi ñu nekk war nañu mën a def ay yarum jën yoo xam ne borom oto jën yi waxuñ ne ñëw jaay si waaye dana fekk ñu li ñu am beneen qualité jën boo xam ne nii bu moyet bi nga xam ne man ba ma xàmmale ko ba léegi depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix ba léegi moom laay lekk moom laa xam muy yaaboy boo ñuul bii ñi fexe jógee ci jëm ci beneen am na xeetu jën yoo xam ne boo ko jëlee ci taax yi yóbbu ko ci kaw gi gune yi buñ ko gisee dañuy daw parce que xamuñu ko comme nag courant am na ci dëkk yu bëri nañ fexe ñun ñu am ñi defaral ñi ñi jéem defar foo xam ne dañ fay man di yaree jën di lekk jën bu qualité bu frais bu baax boo xam ne njëg gi du seer parce que ñoo ko yor ñoo ko yar ba mat ñu dugal ko suñu frigo yi poulailler tamit ñiy yar ginaar yi ñuy wax poulet di pays muy ganaar yi dàq jàpp yi ñu fexe tamit am foo xam ne dañ leen di yar dañ ko fay yaree ngir di ci man di gagner di yar tamit ci jur gi ba bu tabaski jotee ci am problème waye loolu yëpp dafa laajit protection ci état bi ñi ngi jaajëfal di kañ sunu gendarme yi sunu autorités yi yi nga xam ño nek ci kaw gi muy police di gendarme euh, di euh, préfet sous préfet ñëpp ñi ngi leen di kañ ak ñi nga xam ne wa waa yi nga xam ñom ñoom lañ dénk wàllu forêt bi ñom ñëpp ñi ngi leen di bak di leen kañ waye di ñaan état bi ñi gën a protéger ñi nga xam petite entreprise lañ yor da ci dem ndànk-ndànk dañuy gis toujours dañ leen di not songu leen lor leen jël seeni alal biñ ca yem sax maara day taal yi di faat seeni bakkan nañ fexe di patrouille ci loolu fuñ leen woowee tamit ñi fexe ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàll woowee ñuy yor jumtukaay bu mat sëkk essence taxaw gasoil bi lépp mat jumtukaay yëpp mat fuñ leen woowee rek ñu mën a daw ñëw sauvé fi kooka ci ñaawteef boobu nga xam ne mu ngi dal ci kawam muy wàllu càcc jur gi ba wala ñu songu benn boutique boo xam ne da fa nekk di daan doole ngir am loo fa am ci kaw gi ñu songu ko loolu dañ ci bàyyi xel di jeexalee tamit nañ bàyyi nañ état nañuy wax kan moo war a fay bu ñu demee ba gis maara day taali ngat ngar luy lakk muy fi ñu dajale dugub ji wala naaf buy lakk maara day taali ndax dal na fi dëkk yoo xam ne bu ñu woowee sapeur pompier mu ne wool Eaux et ñoo ko war a fay nga woo Eaux et ne wool sapeur pompier wax leen ñi kat moo war a fay loolee ba bu amee ñun bu ñuy suñ tibb suuf ak tibb paane ndox sotti fa tëye ñoom ñi am racole yoo xam ne mën nañu taxaw foofu sori sànni nañ ñi wax ñuuñu fan lañ leen di jëlee ak nan la ñuy def bañ gën a jege ci askan wi ba loolu bu amee ñi man ñi gën a gaaw gaaw sauver ndaxte ndaxte dakkase bu doon tàkk tey boo bu ñaari tàkkee nga desal ya ca des waaye maara day taali naaf wala ngar bu tàkkee rek alal yu baree bëree yàqu na ñi bàyyee ko xel noonu bu boobaa buñ taxawoo ñi ci kaw gi jàpp naa ne fii ci taax yi dana gën a mën a wàññeeku liñ koy wax yépp nag li ñuy défendre fii nga xam ne mooy taax yi ci ndakaaru yeneen dëkk yépp yeneen ville yi ndax ville moom fi ne dama jàpp na Sénégal yépp ville la waaye pour loolu ñoom ñi gën ci mën a sauver nañ fexe ba defar kaw gi loolu nag démb benn élève na ma politique bu yàgg la yag nañ koy wax waye ba léegi kenn mën a kul ko réussir waye nañ fexé ñi réussir ko ndax fi ne ndox amna ci dëkk yu bari courant amna ci buñ ci jappé rek pour ñi yeggali ko du jëfé ñi ngi ñaanal ñëpp jamm yalla def ci réew mi jamm ñi politique politique bo xamné intérêt gox bi lay doon intérêt suñu gox ñun ñëpp bañ ko def politique intérêt personnel yalla ci yalla musal yalla na defal ñëpp jamm jërëgen jëf Abdou Salam Cissé la Sonkorong am na loo xam ne dañ noon balaa ñuy jeexal tam dinañ ci wax muy mbirum réseau bi dëkk yi bëri ci kaw gi am nañ jafe-jafe ci wàllu réseau pour connecté pour nga def vidéo ba partagé ko foog nga ñëw foo xam ne dañu naan mooy ci ville bi pour nga am réseau bu doy waaye tamit ñi nekk tamit ci réseau bu doy bi nga xam ne seen connection mu ngi ñëw bu baax yéen ñepp xam ngeen ne rew mi connexion ser na fi damay duut baram orange Tay 2000 bi ngay dépenser sa kër ñi lek ci boko ko won orange xey nek ci tiktok ak whatsapp bala ngon da jeex mu jeex tak, bala ngon da jot mu jeex tak loluy nak nañ ci baye xel ñu ni tamit gën di yaxanal bu fekke da nga nek ci tiktok wala ci YouTube wala foo mënta nekk plateforme boo mën a dugg boo xoolee li la intéressé xool ko nga gaaw génn bañ ci sax bañ ci yàgg bu dee ci WhatsApp bi noonu ndax nit ñi ni ñuy jàmbatee seeni poos ak ndóol gi nga xam ne mu ngi ci réew bi ni ñuy jàmbatee seeni consommation ci yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ëpp na dama ci jot appel benn góor goo xam ne mu ngi nekk ba côté Ndoukoumane mu woo ma expliquer ma na ma sama téléphone heure bu ma lépp lu ma ci def mu jeex parce que moom may expliquer mu ngi ciy def téeméer ba ñaay téeméer yooyu ci lañ gën a soxor sax fat fat ñi lekk ko mu jeex nga daw wuti wàll leneen dugal ci te dépense boobu loolu xajoon na feneen dépense la njëg rënd la téeméer boobu boo ko joxee bu njëkk ñaar téeméer yooyu boo ko joxee euh, sa soxna mu dem ci marché bi am lu mu ci mën a jënd ngeen ñëw dund ci sutura waaye boo ko defee ci connexion li ngay xool sax li nga bëgg xool sax du yegg mu jeex loolu tamit. ñi ngi ñaan état bi mu gën ci indi yombalal ci wàllu connexion bi mu wax ak opérateur yi nga xam ne lañ ko dénk beneen bi mooy dalal yi nga xam ne ñu ngi koy dugalal nit ñi nañ ko arrêté orange na arrêté dalal yi nga xam ne mu ngi koy dugalal nit ñi naan la boo bëggee dégg ki ngay woo desal tous ab étoile xawma ma juróom-ñaar fukki dërëm ngay ngay ngay fay weer wu ne waaw weer wu ne juróom-ñaar fukki dërëm ci déglu woy yu xeewi yooyu tey téléphone yu bari nit ñi sax defatuñ ci ay sonnerie musique sonné yi njëkkee lañ ci bàyyi ñiy wàccee rek téléphone bi lañ ciy bàyyi muy sone kon kooku looy wooteel téléphone di déglu ay dalal ton ay musique wala ay jàng wala di ci déglu yeneen ak yeneen ku ci bëgg a déglu jàng jàng xam nga fi ngay jaar ba déglu ko orange na arrêté yooyu muy def na ci état bi wax ci nu mu gën a gaawee na arrêté dalal ton yi dafa nekk nag gunóoru gannaaw yére léeg-léeg ñu dugalal ci koo xam ne du ko yëg gunóor yi dox ci gannaaw yére ki topp sa gannaaw moo am na lu taq sa yére bi nga faxas dalal ton yi léeg-léeg ki ñu ko dugalal sax du ko yëg parce que rek cabaxal la ko si ngay manipuler téléphone boo bësee ok rek jeex na am nga ko doo ko yëg nit ñi lay woo di ko dégg te nit ñi néew na ku lay woo na la ah yow dalal ton bi nga yor sa téléphone du la ko laaj yow doo bàyyi xel sax na dalal defal nañ la ko te na juróom-ñaar fukki dërëm nga koy fayeeku ñoom ci seen 4 million abonnés jëlal 3 millions yi rek abonnés yi weer wu nekk multiplier ko par 12 multiplier ko par at ñaata milliards la nañ bàyyi sàcc gi ñu nekkee ak seen caaxaan yi nga xam ne ñu ngi ko nekkee ministère bi ñuy dénk wàllu communication veel ci lolu bayal xel ci dalal ton yi nga xamne muy orange muy expresso dafa yokku taux bi mu daan leblee bo demoon demoon ba ci àll nga am problème euh, crédit nga ne xaaral ma leb expresso 2000 francs comme orange tay boko defone defoon leb ko 2000 francs 2200 lay jël expresso boko lebon 2000 francs 2400 francs ngay fay muy taux bu seer ñom ñoom yaa ngi ci jafe-jafe de gëna tek sa bopp ay jafe-jafe di gën a yokk say taux di gën a indi ay problème nañ ko bàyyi di ñaanal opérateur yëpp soit tànn gi ñu tànn Sénégal ñëw fi ñëw fi di fi liggéey muy Expresso di Orange di Free di Tigo ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm defal leen barke ci réew mi waaye nañ jël li nga xam ne gagné nañ ko ci réew mi bàyyi bàyyi yi nga xam ne ñu ngi ko bëgg bëgg di ni ci askan wi métti na te dafa doy jërë jëf